asalaamaaleykum mbokki internetu Thiès Paola 221 tey nag ma am mbégte ak contentement trop di jàkkaarloog benn MC benn maestro koo xam ni kenn dootu ko naatable koo xam ni wër na àdduna mais tey ñu jéggi frontière yu bëri ñu ko tuddee Alioune Badara Mbodj di ni nga jaar bro naa la. so avant tout di wax béy la ci baal ma waaw baal naa laax nga baal ma yow tamit yàlla na yàlla boole jégal. amiin dañu fekk jël ñu bëri incha allah. liggéey daal ñoo dundee koor. waaw comme d' habitude ah fii nag bon koor gi moom euh, vraiment méttiwul quoi parce que da ngay xëy xam nekk ci sa activité puis ak climat bi aussi climat bu favorable ba sax sedd donc euh, vraiment koor bu easy la ñu dund. sant yàlla. kon daal koor gi melul ni comme Sénégal. tàngaay bi waaw waaw waaw waaw waaw kooru Sénégal nag moo xawoon gën a métti wax dëgg yàlla foofu tàngaay bi xam na voilà donc loolu da ciy xaw a mais alhamdulilah fii moom vraiment euh, mi ngi naan si Sénégal moo parce que xam nga euh, aussi temps bi da ciy joué. fii timis day teel a dugg. Hmm. xam nga donc euh, boo xëddee presque ay quatre heures du matin. xam ay 6 nga dog donc euh, voilà dina am sax période boo xamante ne ay 16 heures ngay donc euh, temps bi di ci di ci quoi mais bon li solo je que du loolu du temps frame bi quoi li am solo mooy nga dund koor gi ak euh, yéeg ne xam nga vraiment sa ruux nga gën na sell ah, et puis sa jaamu yàlla aussi xam na ci yokk quoi. mais li nga jaaw mon frère. ba mhm. léegi non ay ndog yu doy waar rek xam nga madame moom cordon bleu la quoi. voilà donc yu doy waar. mais mooy li ma sànq rek xam nga koor moom je crois que aspect lekk naan bi moo ci gën a terre à terre quoi donc eh, aspect ruux bi nga xamante ne ngay sentir ni sa ruux mi ngi liggéey mi ngi yokku mi ngi xam nga yaa ngi koy dundal je crois que loolu aussi moo ci ëpp solo quoi. macha allah voilà donc ba léegi ñu ngi si diaspora 221 mais tey xew-xew bu am maanaam daje bu am maanaam. Mhm. waaj xew muy waa waajal Pape Diouf. Mhm. grand brigade Pape Diouf nag jub mhm. tey li jaar en tant que artiste nooy nooy euh, ban yëg-yëg ak ban satisfaction ak ba nga déggee événement bi. Mhm. lan nga lan nga yëg maanaam en tant que artiste. voilà donc donc euh, dañuy nuyu Pape bu mu nekk sunu grand aussi xam nga euh, yàgg jàpp suñu événement je crois yi ñu def yëpp ci daan jàpp ci communication bi. vraiment di ci wax di ci sonn quoi donc ñu ngi koy remercier ci loolu. voilà tey euh, mu war a ñëw loon je crois que communauté sénégalaise bi yëpp war nañu war a ñëw accueillir ko ah dalal ko tatagal ko vraiment xam nga show ko love quoi donc man loolu laay wax euh, et puis euh, di wax ne Pape ndaanaan la kenn du ko jàngal bis quoi yàgg naa jël ci ay bis yu mag xam donc je crois que bii nii répétition lay nekk ci moom. en tout cas xam nga dañuy wax communauté sénégalaise bi ak communauté africaine bi yëpp ñu ñëw xam na defal ko welcome bi. dogguma la mais est-ce bi am nañu fi trop trop. waaw pour dire vrai nag communauté sénégalaise bi nga xam ne bari wuñu fi trop trop noonu bon man def naa fi événement en 2019 doon def présentation Marc Solma mais boo xoolee euh, feesoon na dell mais def naa ñaari sénégalais ñoo fa nekkoon Sénégal bi ñaari sénégalais sax ñoo fa nekkoon mm-hmm. mais bon comme man yàlla dafa ma dimbali aussi dama am connexion fii xam nga samay xarit yoo xamante ni fii la ñu dëkk di ay promoteurs yu mag a mag a mag di def ay spectacle yu mag a mag a mag donc ñoom sax ñoom ñoo ñoo ci jàppoon quoi xam ne vraiment mu amoon réussite bu mag mag a mais bon boobu maa ngi fii doogu ñëw defe naa deux ans laa fi amoon mais actuellement dans six ans ci dëkk bi xam nga connexion yi yokku na xam nga relation yi yokku na je crois que dinañ ci jàpp bu baax xam nga invité suñu gars yi ñu ñëw ba defee xam mu nekk une belle fête ah, macha allah kon yéen a ko déggandoo Ligue Dia la maire la maire de London <laughs> mais Ligue Dia fi ñu nekk si London may fan bi gis naa ni daal xaw na xaw na rëmb daal xaw na rëpp macha allah. waaw fii nag moom mooy Oxford Circus. ok Oxford Circus nag bon boo boo déggee London moom mooy xolu London quoi. mooy xol bi daal. waaw donc rendez-vous yëpp fii la gars yi joxe. Mhm. Euh, boo xoolee Nike Town mi ngi foofu. te mooy boutique bu bi gën a boutique Nike bi gën a rëy ci àdduna bi. Mhm. ah boo xoolee euh, shop yi nga xamante ne mooy luxury shop yi. Mhm. ci allée boobu yëpp xam nga ñi ngi fa existé. Selfridges mi ngi à côté. ah donc euh, voilà restaurant yu mag yi aussi ñu ngi à côté. bu daal Oxford Circus moom mooy xolu la mu ko affaire la ñu nekk actuellement nii. macha allah léegi mais Nigga Jah mën nañu xam Nigga Jah si lan la nekk Nigga Jah mi ngi ci woy bi ba léegi wala Nigga Jah mi habillement bi wala léegi Nigga Jah milliardaire wala businessman wala millionnaire mon frère. waaw amiin amiin amiin ci milliardaire bi bëgg nañ ko. macha allah te di nga li ñu war a bëri. Mhm. xam nga ay family support lañ donc euh, ñu ngi koy ñaan suñu borom. macha allah mais jaaraal xam nga euh, koo xamante ne nit bu challenge la quoi bu jugee ci lii dal ci leneen bu jugee ci loolu dal ci leneen quoi. DJ Bouss bu may tuddee l'homme aux 400 projets da koy xam nga sama grand. mais actuellement daal ñu ngi focus ci xam nga sunu carrière professionnelle. Euh, focus aussi ci sunu entreprise muy Solma muy marque boo xamante ni c'est devenu un patrimoine voilà bi ñu nekkee Sénégal def ci li ci war a def ñu gis ne vraiment dañu war a jóge ci loolu dem ci yeneen échelon bi ñu ñëwee fii aussi yàlla dañu dimbali vraiment ñu nekk ci beneen niveau ko voilà donc des fois dafay dox ci dëkk bi sax dañu dégg ay boy anglais xam nga sol marque bi mu nekk loo xamante ni vraiment fierté la satisfaction la mais bon. résultat yi jeex euh, ak seegul quoi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax pour nekk ci niveau bi nga xamante ne fa la ñu bëgg a nekk incha allah mu nekk suñu ambition quoi. macha allah mais ni nga jaar nekk ci musique bi ba léegi wala nekk ci musique bi. non musique moom arrêté nañ ko depuis 2015 quoi. donc euh, def nañ ci liñ ci waroon def. voilà donc mi ci pare aussi pare nañ ci nekk ci leneen quoi mais musique moom mi ngi suñu ginnaaw quoi dëgg yàlla. macha allah mais ba léegi ni nga noo gisee nouvelle génération bi ak yéen seen génération ban comparaison. yaay day booy diif dundu bi am na nu mu meloon bu njëkk ak léegi yow ban gis-gis nga am bu njëkk ak tey ban gis-gis adduna moo demee noonu adduna évolution la quoi euh, boo ko xoolee ci sunu maam Adama fu mu déparé ba fi mu agg si kër yi nga gis ni meluñu woon nii bu njëkk xam kër yi ay barak la woon léegi gars yi ñu ngi étage xam nga léegi ñu ngi ay ci ay building xam nga donc euh, noonu li mu demee noonu ci àdduna noonu la demee ci lépp nag quoi ci musique ci yére yi ñuy sol xam nga ci kàllaama yi ñuy làkk tout le temps day am évolution quoi ñun bi ñuy ñëw suñu génération dañ ko fekk génération ñoom Awadi waa Daara ji waa Pifra sama affaire yooyu ñoom ñu def li ñu waroon def ñun bi ñu ñëwee aussi ñu accompagner la xam na ñoom ñu accompagner ñun ñii suñu touche personnelle xam nga ñun aussi dañuy dem. booy ñoom jiit ñooy ñëw xam nga def seen participation ñun ñu accompagner leen ñoom si dañuy dem dañuy dem yeneen booy ñooy ñëw xam nga ku ci ñëw ku ci xam nga ak sa flavor ak sa touche personnelle xam nga donc musique évolution la quoi. ba léegi ñu ngi si ak euh, diaspora 221. Mhm. mais nag mu am euh, xew-xew bu xew-xew bu mag. Mhm. xew-xew bu neex sax mu ko mën a tuddee. Mhm. tey sunu Sénégal sunu démocratie. tey Sénégal président bu bees. un président jeune. Bassirou Jaxeer Jommaay Jaxeer Faye mhm. tey noo euh, lan nga mën a indi ak sa changement bi tey Sénégalais def mhm. tey at na ñëpp ci coow rawatina sous bi mhm. j'espère que yaa ngi gis tuuti yeeg poste yeeg tey ban gis-gis am changement bi waaw xam nga tey boo xoolee Sénégal bu nekk pays bu tuuti quoi ci démographie ak ci superficie mais dëkk bu mag la ci démocratie quoi euh, Sénégal dafa wane ci loo xamante ne àdduna bi yëpp dañ koy naw quoi et surtout ci li ñu jógee ci trois ans yi passé yi nga xamante ne vraiment mu nekkoon trois ans yu metti mu nekkoon trois ans de souffrance xam nga ah nekkoon trois ans d' injustice ah nekkoon trois ans yoo xamante ni vraiment ku ma am ndey ak ku ma am amul ndey la ñu doon dund Sénégal ah, tey xam nga la jeunesse sénégalaise jóg taxaw porté combat boobu ba yàlla def ñu dem élection yàlla def changement de régime xam nga ñu jóge ci régime euh, vraiment man nan démocratie laa ko tuddee quoi régime boo xam te ne vraiment démocratie Sénégal dafa ndërmiroon bu baax a baax a baax institution yi xam vraiment c'était pas au top niveau donc tey je crois bu fekkee changement am na parce que loolu moo ko suscité ñuy xaar nag ci guvernement bu bees bi nga xamante ni ñoom la jeunesse bi fal moom la population sénégalaise fal ah, ñuy xaar ñoom évolution bu mag a mag mag a mag changement radical surtout ñu gisaat Sénégal bi nga xamante ni moom lañ daan gis avant. Sénégal bu bees tax boo xamante ne institution yu dëgër ñoo koy accompagner Sénégal boo xamante ni justice bi xam nga day am indépendance am quoi. donc ma leen dëgg mhm. dafa mel ni bu yaa ngi insister justice. Mhm. ban naqar ak loo doon yëg. Mhm. trois ans yi nga passé trois ans yi passé si ginnaaw parce que ñu ngi Sénégal yow yaa ngi fi di gis lépp. lan moo la gën a métti lan lan. fan yii passé benn live doon wax ne ñun mosuñu tànn dem bitim réew toog fa yàlla dimbali nañu doon lañu voyager xam nga bu ñu voyager dañuy ñibbi quoi. amoon suñu projet di ko jëmbat Sénégal xam nga ba yàlla defal ñu ci ndam mais tey bu yàlla defee xam nga nga ñëw fekk fii sa njaboot. xam nga émigré comme tout le monde n'empêche pas que nga am benn vue sur le Sénégal xam nga donc ñun vision bi ñu doon am mooy ci dëkk yi ñu nekk da ngay gis ne nit ñi dañuy am seen liberté d'expression mën na wax seen xalaat xam nga heure bu ñu bëggee jóg dox ñaxtu dañuy jóg dem yëgal xam nga ñi nga xamante ne ñooy autorités yi ñu accompagner leen ñu dox ñaxtu wax li leen naqari pour nekk dem ñibbi sa kër mais gis nañu Sénégal trois ans yi ñu génn loolu nekkoon na problème bu mag pour nit ñi wax seen xalaat pour nit ñi xam nga jóg def ay manifestation naqarlu li nga xamante ne moo leen naqari problème la woon xam nga gis nañu aussi tamit xam nga acharnement bi bari woon na ci li tëj doomu aadama yoo xamante ne vraiment arbitrairement defuñu dara xam nga gis nañ aussi injustice bi ñu tegoon Ousmane Sonko pendant trois ans loolu yëpp ñun dañ ci jëloon position assumé ko xam nga ñu dégg ci lu ne nag quoi xam nga euh, doon ci courir ay risques yu bari ba boo bëggoon tàggoo sax ne dama dem Sénégal ñun noo bul ñëw parce que boo ñëwee dañuy tëj loolu yëpp dund nañ ko fii nii xam nga euh, tey loolu yëpp jeex na ñu sant yàlla bu baax mais je crois ñi nga xamante ne tey ci ñoom euh, natt boobu ci ñoom la daloon war na ci tirer leçon bu mag a mag a mag a mag xam nga à que loolu bañ a répété waat ci Sénégal. et surtout nag xam na maanaam euh, bravure policière yi nga xamante ne moo doon am Sénégal man foofu laay gën a insister tey bëggatuñu gis. un policier di yëkkati loxoom ci kaw un citoyen man loolu moom xam nga sama combat la boo xamante ne dama koy continuer incha allah parce que loolu lu ma naqari woon la quoi xam loo xamante ne danaan jeexal sama xol xam nga ay rangoñ sax tour na ci quoi xam nga ci ngay gis ñu yëkkati xam nga ay liif di ko dóor ay xale yu ndaw ay jigéen xam nga loolu je crois que dafa war a jeex Sénégal ak gouvernement bu bees bi ñu. mais ci kaw loolu. Mhm. ba gis-gis. lan ngay wax suñu rakk yi jël baag gaal yi. di dem bitim yëpp boo ko gisee xam dafa am lu ko waral. parce que xam nga de dernière minute la quoi. parce que tu es voilà xam nga voilà donc euh, euh, loolu. Mhm. ñàkk pexe la. ñàkk pexe la parce que mës naa seetaan suma rak suma xarit Siteu ci benn euh, conférence de presse bu ñu doon def mu yëkkati woon ci ay kàddu yu solo et que loolu sax moo gënoon indi suñu relation man ak moom kàddu yu ñu yëkkati noonu ma ne ko xam nga porteur de voix nii lay mel quoi da xool ñi nga xamante ne xam nga mooy le bas peuple amuñu baat. yow yàlla may la boo waxee mu àgg fen nga jug taxaw waxal leen mais discours boobu je crois que defar na tour du Sénégal defar na tour àdduna bi et que moo doon wax ne da ngay xëy gis koo xamante ni yaayam day toog xam nga cin du am lu mu lu mu lu mu ko taalale donc moom amul possibilité dem outil pour indi joxe yaayam parce que liggéey amul xam nga même bu liggéey amee aussi dégg nga borom càq-càq boobu xam ne dafay dem def càq-càq bu ñëwee policiers yi récupéré lu mu liggéey ci ngoon gi donc xam na dëkk boo xamante ni corruption dafa bari mais nit ñi amatuñu issue amatuñu choix li ñuy def mooy xam nga jéem ut beneen issue te loolu je crois que mooy choix de dernière minute mooy choix de dernière instance boo xamante ne maanaam lii moo fi sës quoi dem mbëkki gaal xam na dem uti beneen euh, pexe. mais léegi loolu lan moo ko mën a faale. politique d'emploi utal xale yi xam nga liggéey ah utal xale yi maanaam ci lu ñu jàpp dëkk bari na ay ay ouverture bari na ay ay ay. maanaam ay porte de de secours yoo xamante ni gouvernement war na mën a ibbil bunt yooyu noonu la jeunesse mbay mi mi ngi fi xam nga napp bi mi ngi fi sàmm gi mi ngi fi créer ay industrie yoo xamante ni xam nga jeunes yi dañ ci mën a liggéey pour mën a xam nga euh, maanaam satisfaire seen njaboot cumul de fonction yi aussi ñu éviter ko parce que bu fekkee benn nit dafa occuper trois postes yoo xamante ni trois salaires la xam mais yow da yaa ngi xañ trois yeneen famille yoo xamante ne tey ñooñu mënoon nañ ci jëriñu donc euh, je loolu aussi war nañ ci mën a bàyyi xel mais euh, ba tey ñu ngi ci biir euh, doxantu bi bon mhm. ñi gis suñu président le jeune président Bassirou Diomaye ba mu ñëwee korog sa hôtel boobu ñu tuddee Radisson Blu mhm. sol loolu costume bu yaa ngi mhm. ñu ngi dégg ay quelques sabotations ci costume bi Mm-hmm. Mm-hmm. ni muy solo cravate bi ni muy xoolee xam nga mm-hmm. Sénégal bu ne moo koy déko critiqué ba sax ñu naan pourquoi sol seulement ba sitale si sol solma ndiga jaan tey côté habillement parce que tamit day soog a ñëw parce que tamit bon comme ñu wax rek euh, affaire bi doo tëb tëb rek doo tëb tëb day nekk day am ay quelques lacunes quelques lacunes mais pourquoi pas ndiga jaan ak solma pourquoi pas parce que waaw sociaux yi sol na ci moom. Mhm. Salma moom mu ma. <laughs> non di nga sol incha allah ak Babacar ak Kourouma kala mi solu. ñëppay sol incha allah. Mhm. voilà donc euh, président Diomaye euh, mhm. gannaaw bi ñu ko félicité ba pare. vraiment ñaanal ko yéene bi ñu amoon ñun ak sunu parti def ko ci Sénégal yal na ko yàlla may mu def lu ko ëpp. mooy li may wax xam nga ñun nouvelle génération bi waratuñu am ay rancune yooyu xew yi na quoi. xam na donc euh, euh, voilà donc voilà euh, donc tey Diomaye moom la yàlla fal xam nga jaarale ko ci pour sénégalais ak seen détermination yi aussi nañ ko ñaanal yàlla mu àggali yéeneem ak jàmm et surtout man fi may gën a taxaw mooy te loolu dama koy ñaan ñaanu xol mooy diggante Diomaye ak Sonko yàlla na leen yàlla dàqal seytaan yàlla na leen yàlla dàqal seytaan ba nit ñi li ñuy xaar ci ñoom xam mu bañ a am ba ñu doxal Sénégal ba ñu gis ne ñii vraiment liggéey nañ Sénégal loolu laa leen di yéene quoi boobu bi ci topp nag mooy peut-être cadre bi nga xamante ne loolu ñun suñu passion la suñu métier la euh, dañ ci nekk ay professionnel actuellement nii bëri na ay entité yu nekk Sénégal yoo xamante ne man maa leen di nekk seen personal shopper fii à partir de Londres xam nga donc euh, loolu suñu liggéey la ñu xam ko bu baax nag quoi euh, donc Diomaye bi mu génnee keroog effectivement man dama toog rek xam gis sama téléphone Facebook bi def ay notification quoi ma gis xama nga yi di mentionné sama tur partout ko xam nga euh, doon ma interpellé wooy xam nga il faut nga jàpp ci euh, voilà côté vestimentaire u Diomaye et tout euh, déjà man dama ci def benn jàngat te posté naa ko bërki dem ci sama Facebook mooy dama def collage wu les quatre présidents premier jour bi ñu jël fonction pas fonction sax mais seen premier déclaration ko ma def photo Macky Sall def photo Abdoulaye Wade Abdou Diouf Senghor gisuma woon photo nag mais quatre présidents yi daal gisoon naa seen photo joa Macky Sall Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Diomaye Faye euh, man su ma doon noté su ma doon noté Diomaye laay noté moom laay noté ci côté vestimentaire moom laay may 6 sur 10 et pourquoi parce que li gars yi doon revendiquer ni Diomaye li mu sañse baaxul man je suis un professionnel de la mode dama ko jàng fii ko xam ci lu bari xam naka la ñuy takkee les trois types de cravate dafa am cravate présidentielle am cravate cérémoniale am cravate de bureau yooyu yëpp dafa am différence noo koy takkee bu ci nekk bokkul donc tey je crois que Diomaye foofu rek lañ ko mënoon wax ne peut-être cravate bi c'était pas présidentiel te loolu c'est pas méchant parce que gis nañ fi ay présidents yoo xamante ne des duñ takk duñ sax takk cravate dañuy relax gis nañ fi Obama des fois il relax donc loolu c'est pas méchant c'est acceptable beneen bi peut-être xam nga mooy chemise bu mu sol ci biir peut-être xam nga nekkoon na chemise wante ni xawoon na rëy tuuti ba da gis vague ci biir muy fekk mais loolu c'est pas méchant aussi. ah bon non méttiwul. la prof donc boo ko jëlee mooy la wax day am moyenne ci sañse bi quoi da ciy am moyenne day am 6 sur 10. 6 sur 10 léegi nag sénégalais yi ñoo waroon am esprit de dépassement. merci beaucoup xam ne Diomaye dafa am ci lu mu jugee. stress ah. psychologique dafa am président de la République nga dégg ko part bi rek dafa diis. ñu ne yow la ñu éli nga war a jiite 17 millions de sénégalais loolu dafay dafay def stress psychologique mi ngi jóge prison loolu stress psychologique la aussi. xam mi nga am ay ambition naka la ko war a réaliser loolu dafay peser ci stress psychologique am xam nga te boobu temps bi mayu leen woon ñu am benn parce que président yi nekk ci àdduna yëpp dañu am un conseil en habillement wax te dañu am bureau ci biir pale bi boo xamante ni kooku moom mooy gérer lu jëm ci wàllu image yu président loolu peut-être ñoom sóoraale wuñ ko woon parce que ñu ngi nekkoon ci campagne électorale ñu ngi nekkoon ci élection xam euh, mais peut-être foofu sax laay xaw a peut-être bon critiquer tuuti parce que waroon nañu ko mën a prévoir xam nga tey boo demee final NBA ñaari équipe ñooy ñëw mais équipe bu bu ciy ñëw dafay indaale li nga xamante ni bu gagné final bi ci les casquettes yi t-shirt yi. du bàyyi ba gagné final doo ko def. mais dañ koy indaale ci final bi. mais dëgguma la Badou. Mhm. mais pourquoi man. gisoon naa wooye nga ma ñetti tur ah. wooye nga ma Alioune. Alioune Badara Badou Dia Liga Liga Dia mais Liga Dia mais est-ce que waru woon sol tenue traditionnelle. waaw xam nga loolu yëpp moom laa lay wax tey bu fekkoon ñoom prévoir nañ loolu parce que Diomaye li tax ma ne loolu man moom foofu sama critique ci foofu lay dem mais pas li mu solo mais ci entourage parce que bu Diomaye nekkoon na favori ci élection yi te jox naa la ko exemple maanaam léegi ci ñaari équipe football yi dem final dañuy prévoir ne ñoom mën nañ ko gagné te buñ ko gagné loolu day nekk automatique n'est-ce donc loolu équipe bi ñoom ñoo waroon sóoraale que ni Diomaye comme bokk na ci favori yi te mënoon naa gagné loolu waroon nañ am kenn koo xamante ni dafay accompagner équipe bi. moo gérer loolu. ba ci coiffure coiffeur bi nga xam ne dafa waroon nekk Radisson bi. mooy wax sax na ma la baax loolu dañ ko waroon gérer mais bon bon c' est pas encore trop en tout cas li may wax mooy loolu duñ ci focus quoi parce que am na priorité yoo xam moo gën a nekk priorité loolu. xam nga jomaay li mu solo lu baax la lu acceptable yàlla xam na ko je parle objectivement. lu acceptable la loo xamante ni maanaam waruñu ko mën a critiquer. kon daal gisoo ci dara duñu war a mën a critiquer. am na ay erreur moom laa lay mais loolu. quelques kenn mënu ko critiquer. parce que ci circonstances yi nekkoon la quoi. si si si euh, euh, ma comme quoi que ni voilà xam nga mën nañu liggéey ak moom et tout. loolu man du dépendre ci man. loolu ci Diomaye lay dépendre ak équipe am quoi. ak actuellement ñu bëri maa leen di ci côté boobu. am na ñuy liggéeyee Sonatel am na ñuy liggéey impôt domaine am na ñuy costume bi ñuy sol xam nga bi ñuy takk ba ba ci kawas bi ñu koy booleel xam loolu yi man maa koy gérer à de Londres. ah donc loolu ñu ngi ciy liggéey presque trois ans ak léegi. xam nga donc euh, lu ñu xam la lu ñu mën la aussi. xam nga am na ay booy joueurs yoo xamante ne aussi ñu ngi nekk équipe nationale ñu gérer seen seen ñoo nekk seen costume shop. donc loolu xam nga lu ñu xam la quoi nekk lu ñuy tâtonné quoi. voilà donc euh, mooy beneen euh, aspect boo xamante ne peut-être koy développé lu bokk la ak sol ma kese la ñuy euh, gérer mais personal shopping bi ak xam nga euh, stylish advisor bi loolu yëpp dafa bokk ci xam nga euh, sunu entreprise muy entreprise sol ma quoi. loolu ci ci jomaay lay dépendre dépendre ci man bu ko sentiree mën nañ ci liggéey bu ko sentirul aussi tamit bon voilà. mais bari Sénégal ñu ko mën allah mais yow sa côté professionnel yi fii ba am na am na kii bu baax. man danaa ko mën a expliqué yow yow boy jour yi yow boy jour yi non boy jour yi moom vraiment samay rak la ñu relation yu rafet la ñu am même bu weesoo sax affaire da ay sol yeeg yooyu mais vraiment relation respect grand frère petit frère la ñu la am ak ñoom quoi xam nga euh, ku ci mel ni Cheikh Kouyaté ku ci mel ni Pape Ndiaye Soirée ah ku ci mel ni Moussa Konaté ah ku ci mel ni Piboy 99 ah Khadim Joel ah Loum Ndiaye ah Mbaye Diagne ah, vraiment ah, Dame Ndoye waaw ñoom ñëpp vraiment su may booy la ñoo xamante ne su may rak la ñoo xamante ne vraiment cër bu mag a mag a mag a mag lañ ah, mais cependant le mot de la fin ak suñu grand bégay bi surtout sunu grand bégay bi. waaw non le mot de la fin weesuwul rek xam nga ne vraiment ñi ngi nuyu Sénégalais yëpp. Mhm. Euh, di wax ne ñi ngi encouragé sunu parti muy parti PUR ah Aliou Mamadou Dia nga xamante ne projet bi mu présenté Sénégal euh, am na ay nit yu bare bare bare yu nekk ci àdduna bi. ñu ne ma mais Alioune lii daf ko waroon teel a wane quoi parce que ñun euh, bu dul woon Pastef pur la ñuy votel quoi am na ñoo xamante ne sax def nañu xam ma euh, changement de vote dernière minute ndax projet boobu mu am na ñu ma woo carrément ne ma man xam na diw laa waroon votel mais vraiment man actuellement ni maa ngi rangé wu ci euh, derrière Alioune Mamadou Dia donc mu nekk vraiment affaire bu doy waar boo xamante ni adduna bi yëpp ñu koy magnifier li gaa yi def mooy moom est-ce que loolu c'est faisable wane ci li nga xamante ne mooy projet boobu noonu est-ce que loolu xam nga faisabilité bi xam assuré na quoi man leen loolu Aliou daf leen wax ci biir projet bi comme quoi que li koy financé jugóolu sax Sénégal état wu Sénégal dërëmu du ci dem donc loolu taxawal loo xamante ne tey bu yàlla defoon Aliou Ngouille Ndiaye ñu proclamé ko mu nekk président la République lundi bi xam nga dañuy démarré projet yooyu mais yàlla ko yàlla motali xam nga euh, demoon nañ outil euh, comme ni ko Serigne Cheikh daan waxee perdre ou gagner du essentiel essentiel bi mooy nga participer te bu élection yi jeexee aussi nga nekkat ci li nga war a nekk pour sa dëkk avancer quoi am na ñoo xamante ne élection ba élection la ñu leen gis bu élection passé kenn dootu leen gis mais tey na mais dinañ continuer allah ak parti nga xamante ne man fa bokk di fa militer aussi ah, euh, nekk ci vraiment koo xamante ni comme euh, live yi ñu def ci biir euh, campagne électorale bi xam nga muy sérénité lañ ko tuddee woon. Mm-hmm. dinañ ko continuer incha allah donc en wax ne vraiment Pape ñu ngi bu ñëwee aussi xam nga euh, li mu fiy ut si yàlla ko ci yàlla defal ndam. parce que ndamu Sénégal la aussi ah xam nga ñu fàtte xam nga ci élection yi parce que élection yi ku ne amoon na foo bokk mais élection passé na ñëpp nañu bokkaat ndey ak bàyyi xam nga ni kii fii la bokkoon da nga ko fay xoolee wala nangam ak nangam. surtout surtout nañu bokkaat ndey ak bàyyi xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. xam nga ndamu Sénégal mooy ndamu Babs diaspora mooy ndamu Kourouma mooy ndamu keneen ak keneen xam nga lu la baax nañu am cette nouvelle génération dañu war a état d'esprit bu bees tax boo xamante ne maanaam ñun dañu war a bokk lépp xam pour avancer le Sénégal donc loolu moom moo nekkoon mot de la fin di nuyu sama soxna fii di nuyu Khalifa le prince di nuyu Assi sama doom di vraiment famille bi yëpp mais ça fait plaisir mais Alioune Badara Ndiga Dia Mbodj Mbodj Mbodj mais kontaan naa. maa la gën a kontaan bro. kontaan naa de la gën a kontaan. saa maa mel lu yàgg dëgg la. waaw ah, voilà lu wër na doy fa waaw waaw loolu moom doy fa nga nekk ku baax. yaa ma gën a baax. nekk ku ëmb yaa ma gën a baax yaa ma gën a am macha allah nit bu dul changé. macha allah kontaan naa gërëm.